kon jàpp leen bu baax kookee nag espoir la am nañ yaakaar lool mu gàddu leen mooy médaille bi kon ñu ñaanal ko ek moom dina jàll kat demi final yooyee mercredi comme ni nga ko fësalee à partir de 17h10 GMT. Yves Boris malheureusement dafay mujj laaj ci huitième de finale yi mu terminé troisième ci loolu la ñu naan kayak cross. ek légende ci wàllum wàllum tennis bi nga ne mooy Novak Djokovic sa raay bi ko manqué woon nag voilà am na ko ci carrière am de muy leen mooy médaille d'or olympique kon loolee antu na ci match xaritoo yi Liverpool moo doon kaw United bi yem na pré-saison muccul ayib dara ñetti bal de la ko daan Man City jaar ci kaw Chelsea ñeenti bal ci ñaar waaye jàpp leen kii nga xam mooy Maresca nag mi ngi installé jeu nag jeu bi mu bëgg nag doxalee petit à petit li nga xam ne nag moom la war a dooleel doonu lenn lu li nga mooy défense bi am fay yu mag yi nga xam ne ñu bëri seetlu nañ ko ci noonee voilà nag ñu ngi ci dossier brésilien bi mooy Murilo ma rappel que yi li nga amal triplé ci jonte boo mooy que mu dugal ñett bi à la cinquième ak 56e minute ci beneen jowante bi gën ràññeeku ci Real ak waa Barça jàppale nag Barça mujjee daan ñaari bal ci benn ñu ngi fësal ki amul doublé nag mooy Victor bi am na jàppaleen kenn mooy Flick nag mi ngi mi ngi indi ay leeral mu ne kat li muy wane nii mucc na ayib ndax ci ñaari match yi mu joxal mu dugal ci ñetti but mu ne vraiment loolee nag pas mal kon li nga xam ne nag moo leer ba leer mooy ko kat buntu équipe première ubbil nañ ko ko kon li leer ba leer mooy que moom dina fa desandi waaye côté merengue koo koy di paas mooy di du bi. ginnaaw gi ndam boobee Barça amaat ko devant les merengue jàpp nañ ci match xarito yi amal yépp kon Barça am na vingt cinq victoire six victoire côté des merengue ek ñu témboo douze fois. Michael Faye bi am nañ na vingt cinq minutes la doxal de waaye wane na vraiment jour bu xarañ la 34 ballons pour cent de passes réussies. deux duels sur trois gagnés ak deux dégagements benn interception benn attaque réussie kon du ñu àttir nam ñoom ñoo gagné les merengue jàpp leen bu baax kooke di seen course di Hans Flick moo ne nag li mu bëgg a gis nag wala nag gisagu ko de ci équipe boobee ndax jàpp leen moom danoon seddu à sëkkat ay jouram concentré du début jusqu'à la fin surtout pression bi nga xam ne nag moom la bëgg ñu installé ko kon lu ni mel dina ko jointi à l'entraînement Carlo Ancelotti nag moom nag indi indi na ay lay ci lajj bi nga xam Real am na ko de ginnaaw gi Milan kon ñu daanawaat devant les Blaugrana Grenade li nga xam ne wax ma ko nag mooy ñaari défaite mu ne ay match si wàccaay dong la jàppaleen bu baax mu ne nag manqué na ko wut ci ay joueurs yi nga xam ne am nañ solo lool ci équipe am boobee mu ne nag résultat bi amul solo li ëpp solo mooy mu xool yenn ci seen ay joueurs ci noonu ki nga xam ne nag dugal nañ ko ñaari yoon muy Endrick li leer ba leer mooy que kat média catalan yaa ngi koy sànni xeer de ci mën ni mëndoo tipo tipo mu ne kat kii nga mooy Endrick voilà mi ngi seet si rek waaye nag. vraiment pesé gul ci li nga xam ne attaque yu attaque yu merengue yi kon kan moom il a intérêt mu wane boppam waaye comme nga ma si wàccaay la c'est le moment nga jointe ay mbir ëllëgu portier ukrainien bi ngeen mooy Andriy Lunin jàpp leen ba portier belge boobe di courtois àdduna ci nag une première xibaar boobe ñu mën ko tàttaan sur foot mercato mu nekkat di sañ-sañu vraiment na li nga mu def ko et que moom nag du toog ci place am naan da koy jëlal ndogal kon li leer ba leerul li ñu naan la balle est dans son dina xam li koy arrangé mu amal ko. wàllum jënd ak jaay kooku di Nicolas Pepe doomu ivoirien boobee rejoindre na club bi mooy Villarreal de Pape Gueye. ek jàpp leen ki yéen moom mooy João Kimmich moom dàq na kat quitté club bi nga xam ne moom mooy Bayern na leen naam club yaa ngi koy pii say bëb booy soxandikoo ci Florian Plettenberg lim nga xam ne wax na ko nag mooy que nag. ci dañ waxtaani la aajo ci beneen contrat bu bees bi bëgg naka wéyle actuellement nag ñu ngi koy fay lu mat 20 millions d'euros par an et que nag njiit yu bayana jàpp nañu dafa xaw takku nag seen ab gafa ga doon nañ sàkku ci moom à que mu wàññi ko de mu mën a wéyal ak ñoom waaye nag ci fànn boobee am nay sooxee kon li leer ba leer naam naam li nga xam ne mooy salaire bëgg nañ ko wàññi waaye nag dinañ ko waxtaanee bu ko defee mu mën fa wéyle léegi lépp yem mën a de kookee di sabi say moom moom kat paris saint germain da koy abalewaat dakay bale waatee foofee ci Leipzig ñaari saison bu tegloo ginnaaw gi daaw kon jàppaleen bu baax moom miin mooy doomu Néerlandais bi moo fësaloon ne bëggul delluwaat foofee ci Paris ndax kat bu fa demee temps de jeu kat mën na sooxee bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano àll nañ leen ko te waaye dëxee ñu ci benn benn option d'achat kon ci pere boobee bu jeexee nag dina delluwaat foofee ci Paris bi nga xam ne mooy seen zone ndax ñoom la amal contrat comme ni ñu ko fësalee. Xabi Alonso mooy entraîneur bi gën a xarañ foofee ci Allemagne vraiment historique ndax saison bi amal na ko ca Leverkusen rien à dire Toni Kroos mu remporté prix du footballeur allemand de l'année jàpp leen bu baax di accord total entre Atlético Madrid ak Chelsea muy soxandikoo ci Martinez ci transfert bu Conor Gallagher bu fekkee Manchester United nag jàpp leen bu baax nag duñu duñu mën a dalal kii nga xam ne moom mooy Ugarte li leer ba leer mooy ko am nañ option de bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano mooy ñuy lever clause bu marocain bi nga xam ne mooy Sofiane Amrabat et que Marseille United boobee la xam ngeen ne depuis ndorteelu bi kat ñu ngi pii si bët Matip di lekk ak kenn mooy Noussair Mazraoui li leer ba leer mooy que ñaari joueurs yooyu nag lu mat 70 millions dollars lañ bëgg a teg ci table fay ko waa Bayern ak ñaari joueurs yooyu kon du yàgg dara balaa dinañ rejoindre club boobee ci ay bés toujours buñ soxandikoo ci journaliste italien boobee. doon nañ ko annoncé ne dina quitté club biir mooy Man City ndax club saoudien yaa ngi koy pii si bët et que sax moom moo génnoon wax ci ay kàddoom ne. voilà pourquoi pas mu def foofu itay koppar nag loole moo yëngal club saoudien yi waaye li leer ba leer moom noppeegul dëkkati club bi ngeen mooy man si bien un an de contrat moo ko fa desee kookee di Kevin De Bruyne li leer ba leer mooy ko voilà dàq na utali foofee pour l'instant mais peut-être déwén mën ngeen ko fa séntu club bi nga moo ci gënoon yëngu de mooy Al Ittihad Benzema bi nga xam ne ñu ngi dalal ay joueurs yu ba fu nekk Jean-Philippe Mateta coéquipier d'Ismaïla Sarr ca Crystal Palace mi ngi ci woonu xaatimal contrat ak club des Eagles boobee comme ni ñu ko fësalee ndax am na club yu ko bëgg lu ma ni RB Leipzig wala boog Napoli waaye moom yéene mooy mu confirmé waat ndax daaw ci ñaareelu pàcc saison bi kat la lakk caaxi lu bari de ci English Premier League bi Sen Sport moo ko fësal. Lille nag ñoom ñu ngi ci suuf di waxtaan ak doomu doomu Camerounais bii mooy Youssoupha Moukoko jàpp leen bu baax liñ bëgg nag mooy mu rejoindre club LOSC boobee waaye moom miin mooy Moukoko nag lim leen xamal mooy que moom Marseille dong de moo fees say bëtam kon li leer ba leer mooy que Marseille kat dootu mu naam di leen ko jaay waaye nag dañ leen ko ab ak ñu dëxañ ci loolu la ñu naan option d'achat bu ñu soxandikoo ci foot mercato. doon nañ fësal ne Barça dañoo am yéene dalal kii mooy N'Golo Kanté Mundo Deportivo leeral na nag kii nga xam ne moom mooy Flick di seen ab coach su nag dàqatakat doomu doomu français boobee d'origine malienne mu ñëw foofee jàppale mu ne nag dafay jox dafay jox la chance nak am wóolute ci ndaw yi nga actuellement ñi ngi foofee rawatina ci Masia bi jàppale ci post boobee bi nga xam ne N'Golo Kanté fa lay doxal. ñu wéyle xibaar yi addu ci kiyéen mooy João Félix na mi ngi amal ay tàggatu di ak club bi ngeen mooy Atlético Madrid waaye li leer ba leer mercato bi tëjagul ay buntam il se pourrait amaana moom kat mu quitté club bu Cortiñeiros boobee jàppale nag bés bu fay quitté nag du utile benn yoon ci Portugal bi nga xam ne club ba mu daan doxal mooy Benfica ak club yi nga xam ne nag ñoo nekk en pole position ñoo gën a jëkkandi pour dalal ko muy Aston Villa bi vraiment ñu ngi def lu ñu mën bu ko defee mu ñëw dooleel seen équipe boobee daan na doxal ca Barça club bi mujj mooy Espanyol de Barcelone kookee di doomu danuwa boobe di Martin Braithwaite actuellement nag actuellement de ma ngay doxal fa ca Brésil ak club biir mooy Grêmio mooy soxandikoo ci Marca moom nag benn yéene la am mooy club bi nga xam fa la ba mooy Espanyol de Barça seen doxalin ci ay njiit neexu leen dara ba tax naka noppee naa teg koppar yu takk bu ko mu mën jënd club boobe jointi nag teg ko fa fu koy fi nga supporter et moom bés bu jëndee club boobu njiit yam ñi ngi foofee ñëpp lay daq nag bu ko defee voilà nag mu mën a avancé wu toujours bu soxla ko ci marka dooleem dina ko ko may ndax jàppaleen bokk na ci joueur yam ñoo ëpp xaalis nag ci monde bi loolee lañu fësal. ndaxte moom am na entreprise entreprise yu bëri ci wàllum immobilier foofee ci États-Unis bi yam ne estimé nañ ko valeur bu mat. 250 millions d'euros am na aussi ay marques de vêtements am ay restaurants France Espagne. kon kookee kopparam noo ko nattee balaa weesu na ko Juventus de Turin buy soxnikoo ci Gazzetta dello Sport ñi ngi jege amal déggo ak waa Nice ci défenseur français boobee di Jean-Claire Todibo nga jàpp leen bu baax du ñoom dong de Manchester United aussi wala ba West Ham ñi ngi di leen teg mbëgg waaye doomu français boobee moo leen xamal ne nag moom club bu vieille dame bi de Thiago Motta moom la bëgg doxal waaye leen lu des naka toppandi. Corriere dello Sport yamul foofee mu ne club bu vieille dame Atalanta de Bergama ñoom ginnaaw bañ dàqi seen offre bi nga xam tegoon nañ ko nag jokkoo nañ seen loxo de ci kookee di tën Kob Mainers benn milieu terrain bu xaraña ci mi muy amande la champion d'Europe ci wàllum Europa League pour rappel jàppale nag euh, club bu Juventus boobee léegi tegaan na ci table bi nag 55 millions d'euros bu ko defee lépp mën a jàppandi. comme ni nga ko fasiloon ci xibaar yu weesu moom miin mooy Habib Diallo ginnaaw gi ba mu utalee foofa ci Arabie Saoudite waaye saison bi mu fa dundee muccul ayib dara. ba tey nag clubam boobu di Al Shabab nag ñi ne si fay xool ba xam balaa ñu koy abalee feneen la contrat moo leen ci noonu jàpp leen bu baax nag Lens ñoom ñi ngi def luñ mën bu ko defee balaa ñu mën leen ko abal ñu mën leen ko bu ko defee mu ñëw dooleel seen secteur offensif boobee ndax xam na championnat français boobee kon am na fa expérience ndax bokkoon nañ ña fa dàq dugal ba mu doon doxal ci Strasbourg. ñi ngi fësal ci këru xibaar yi nag muy sukkandikoo ci équipe kon club bu Nampalys Mendy nag ñi ngi def pression ñu mën leen abal l'international sénégalais bi ngeen mooy Habib Diallo kon cant ak ngërëm ñeennal leen dina jaajëfal ci yeneen xibaar sur les sports 221